waxtaan waxtaan naa ci itam ak président de la république euh, xam naa ne sax bu sañoon ma xaar tuuti ba ñu gën a liggéey ndax liggéey bi bare na coono yi bare na ci réew mi te lu bari sumboon nañ ko wax dëgg yàlla loo xam ni lii mu ngi doon doon jariñu Sénégal ndax yàlla dogal na suñu diggante moom dañuy diisoo jamono bu nekk saa su nekk ñoo ngi ci téléphone bi saa su nekk ñoo ngi yónnante message ci liggéey bu mucc ay macha allah te Sénégal dafa doy waar rek mais normalement waroon nañoo mën a sax liggéey ba egg ci élection yi ku nekk laaj mais boo ko defee ñu ne ah lu tax muy nekk ci gouvernement ba pare di contre président et cetera ah, lu tax ñuy bàyyi président muy nekk président di nekk candidat bu fekkente ne loolu la bëgg tey mënuñu ko permettre keneen ku nekk ci coalition bi mais ba tey Sénégal moo bindoo noonu donc pour mu leer nàññ ne diil amul dara amul mm-hmm. te bi ma ko ko waxee itam daf ni ma lu bokkoon ci li ma doon séentu la ndax wax dëgg yàlla parcours bi nga def ak fi nga jaar ci politique bi ñu àndoon ko ca PDS ja ba nëga ni jaadu na nga bëgg a nekk candidat ma ne ko li ma ci jublu rek mooy xam d'abord waa Thiès ensuite waa Sénégal ah fan fan lañ ma féetale buñ ma joxee cinq pour cent ma xam ni cinq pour cent la bu ñu ma joxee cinquante ma xam ni cinquante la